xëyandool xëy di ko defal bilan bokk na ci ñoom l'observateur mi jukki lan na ci réalisation yu Macky Sall bokk na ci PUDC couverture maladie universelle bourse familiale Promoville autoroute Ila Touba train express régional ak yu ni mel président def na ko fi ci juróom-ñaari atam yi waaye am na fu ak nguuram sooxee lu ci mel na dialogue national bi wàllu gouvernance wàllu économie justice wàllu wér gi yaram gi ak wàllu njàng meeg njàngale mi loolee ay mbir la yoo xam ne l'observateur gis na ne Macky Sall faaw da cay góorgóorlu ci juróomi at si ko dese ci bopp réewum Sénégal bu ko bëggee matal économiste bii di Maysa Babou syndicaliste bii di Cheikh Diop ba ci professeur Moussa Diaw di kuy jàngale science politique ca université Gaston Berger bu Ndar ñoo ngi wax ci yéenekaay groupe Futurs Médias bi li war Macky ci mandaam bu bees bi La Tribune nañu ñaari mbir a ngi yoo xam ne Macky war na caa gën a jëmbataat yitte ndax urgence lañu mu di wàllum paj mi maanaam santé ak wàllum njàng mi di éducation journal Le Quotidien moom it xëy di bilan juróom-ñaari at yi na ne ci at yi Macky Sall ku nguuram wane nañu fi ñaari xar kanam yu bokkul bokkub gouvernement liggéey nañu fi lu ñu war a mën a bàkkoo kakañoo waaye ci mbirum gouvernance mu di yorin foo ko tudde lu bari ci askan wi accam la ci teg yéenekaay bi nañu lu bari lu mu def loon ci mandaam bii jeex moom Macky léegi am na yeneen juróomi at ngir mën koo dab dabaatal njiital parti socialiste di Ousmane Tanor Dieng moom la Soleil national xëyee sangeñeen Ousmane Tanor Dieng président au conseil collectivité territoriale waxtaan nag journaliste Soleil national na yu bari faluwaatuk Macky Sall njabootuk socialiste a dajalewaat dialogue national bi Macky Sall di woote lu ca nekk Ousmane Tanor Dieng wax na ca xalaatam dialogue boobee sax moom Tanor mi ngi jàpp ne muy Abdou Diouf di Abdoulaye Wade ku ci nekk am nga ci cër bu rëy am nga ci wàll wu mag woo ci war a def ngir dialogue bi mën a ant l'observateur nañu bu ñëpp mel ne Ousmane Sonko day dialogue boobee Macky Sall di woote du mas a antu ndax Ousmane Sonko njiital fu nee na demul ca dialogue ba ne gisul solo mbaa il lay dem di dialogue ak Macky Sall Macky Sall ak gouvernement bu bees bi mu war a taxawal ci réew mi Sud Quotidien nee nañu ñëpp ngi koy xaar muy politiciens yi société civile gi ci gàttal ñëpp moom la ñuy xaar waaye bu ñu moytuwul la mu daan wax mu di gagner ensemble gouverner ensemble du am gile yoon ci gouvernement bi ne mi ngi ci deuxième mandaam te mandaam bi mooy mandaam bu mujj li leer moo di buy taxawalaat benn gouvernement ci réew mi majorité bi la ciy gën a sóor bu dul dara sax ngir waajal élection locale yi ñuy séntu ci réew mi moo waral sud gis ne gouvernement bi du yomb dina yombam du yomb direct info nañu gouvernement boobee bés bu taxawee yuuxu dana jibe fuñ ko foogewul dana bare ñu wàccee ñoo xam ne kenn musu ko woon a foogee suur su a am na lu muy foog ci juróom benn fukki milliards ak juróom genn wàll gi ñu ne dañu ko bëgg a yëkkati defaraat ci marché yu nekk ci réew mi journal bi nee nañu projet boobee ñi ko seq ñu bari ci ñoom nanguwuñ ciy xuuse nanguwuñ cee sori li waral noppi geeg patt geeg cell gi moo di am nañu njoxt ne ñi ci nguur gi dañoo bëgg a bàyyi ba élection locale yi ñëw ñu jël projet marché yi di ko campagne yi ginnaaw waxi marché yi ci source a ñu wax ci marché ndox mi ci libération ubbil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy xamal ne lu jëm ci contrat d'affermage bi génnewaat nañu ci SDE ginnaaw réévaluation gi autorité de régulation des marchés publics santaane woon comité chargé des offres Suez la tànn rapport ba dem na DCMP ngir ñu war ko approuver laata ñuy siiwal attribution provisoire bu marché ndox mi ci réew mi réew mi yëpp àndandoo nañu ne leen mu di gayndey Sénégal yi équipe nationale bu football bu Sénégal l'observateur nañu ñoom gaynde yi keroog samedi dañoo duma Madagascar ñaari bal ci dara ca kees éliminatoire Coupe d'Afrique Égypte 2019 la ñu doon football Mbaye Niang moo dugal ñaari biti Sénégal yi journal bi nañu neexoon na les éco nañu gaynde yi matal nañu liggéey bi ci anam yu rafet Mbaye Niang ak Krépin Diatta toj nañu max ba rajax keneen ku toj max ba di Sadio Mané ni ñu ciinekaay bi bu ñu gëmul ne mën nañoo gagné coupe d'Afrique ba boye boo ñu toog ci suñuy kër seen entraîneur ñoom gaynde yi di Aliou Cissé mi ngi ci Vox Populi moo ki kàddoom nee na ossature maanaam yaxub équipe bi war a dem ci coupe d'Afrique bi mi ngi fi El Hadji Ousseynou Diouf ne nekk ci Source A bu ngeen bëggee def lu baax ca kan ba faaw da ngeen di defaruwaat xoolaat seen bopp ndax li ngeen di football baaxul seen football yeex na te bari nay déchet